ca ka nekk ca bopp ba di alxalifa al cheikh Aboubacar Mouhamadul Mansour jaar ci ki yor kàddu kër ga di sëriñ Pape malik jaar ci alxaaji Malick si Maodo wàcc si ba ci sa njabootu bopp di njabootu cheikh Abdoul si al amin ca ka nekk ca bopp ba di sëriñ Babacar ànd caag rakkam yëpp ak cheikh Mouhamadul Moustapha mi nga xam ni amoon na yéen a ren ñëw yàlla dogal xat-xat am. sëriñ Sidi Ahmed mii nga xam ni moom la la góor gi féetale woon daan ko fi yebal ci dundam ñu doyloo loola wéyal loola mu ñu yebal ko mu ñëw àndandoog ñun ak imaam alxaaji Moor Mbay waaye nuyoo boobu li muy rëy rëy ñu ngi ciy boole nuyoo kilifa diine yi ji fi teew yëpp tabaarakallaahu ñoom ñëpp teew nañu sëriñ bi dafa mel ni li arab yi wax lisaanul xaali asdaqu min lisaanil maqaal moo dal ñëpp tey mbégte bi xaal yi yëg moo gën a dëgër bi ñuy wax ci làmmiñ yi mu mel ni ku fi toog rek boo ja xoolee kanamam diñ ci liir ni kontaan na bég na loolu yëpp nag li ko indi mooy sa yitte ak sa taxawaay ak sa tàllal ñëpp loxo maam alxaaji abdul aziz radiallahu anhu daf daan wax ni ku yëkkati sa loxo ndeyjoor ni faalewu ma kenn nee na yëkkatil ba ca des ni kenn faalewu ma waaye mbakke sa jëfante këru diine ji rafet na yaa ngi ciy wuutu say mag ak say kilifa di jokkale di tabax di defar di rafetal ba mu rafet yalla na yàlla guddal sa fan yal na yàlla yàggal la yal na yàlla kartanal la njabootu sëriñ Abdou njabootu sëriñ Babacar njabootu Cheikh Al Hadj Malick ñoom ñépp ñi ngi fedd li wëllëre woowu ak mbokk googu ak ànd googu ngeen àndoon di ko rafetal tabaarakallaahu li nekkoon sa digganteeg sëriñ Abdou sëriñ Ahmad junj na ko léegi rafetoon na matoon na kawe woon na ngir yàlla ak mbokk akug wëllëre ak jaxasoo ak xam ni it yéen a bokk mission nga daan coordonné moom ci yu bari di jokkoog moom ci xalaat ngeen di waxante xalaat di waxante seet na mu gën a baaxe mu nekk njëriñu àddina nekk njëriñu Sénégal nekk njëriñu diina ji loolu musuloo cee jóg ba sa mag ji war la gannaaw nga continuer di rafetal loolu ci njaboot gi ba tabaski ren gee ci mujj la nga daan seq ak sëriñ bi yëpp seq nga ko njaboot gi kon nag Mbàkke sant